point de presse bi ñu leen woo ñun faamu Benno Bokk Yaakaar dañu àndandoo joxante loxo pour préparer ñëw bi nga xam ni président de la république son excellence monsieur Macky Sall daf ko fay ñëw mercredi ñëwam boobu nag ñëw bu am solo la parce que dafay ñëw pour basam bi nga xam ni ñoo ko faloon en 2012 xam nañ ni 2012 65 pour cent des sénégalais ñoo fal monsieur le président de la république monsieur Macky Sall donc mu ñëw pour dooleel ñu ci préparation référendum bi nga xam ni sénégalais yi yëpp gis nañu liggéey bu am solo bi nga xam ni moom la président des pour l'intérêt du Sénégal may woo suñu mbokk jigéen yi woo suñu mbokki waa Thiès. incha allah le dimanche 20 mars ñu teel xëy parce que référendum bi ñu woowee référendum bu am solo la du référendum bu nga xam ni dañuy tànn président de la république du référendum bi nga xam ne dañuy tànn député yuy dem à l' assemblée du référendum du élection yu ñuy tànn conseil municipal ces élections pour ñun la doomu Sénégal parce que poñ yi nekk si li nga xam ni moom la ñuy proposé incha allah bu 20 mars dañuy wax lii lañ leen di proposer pour gën a dooleel euh, askanu Sénégal gën a dooleel askanu Sénégal moom mooy gën a dooleel démocratie sénégalaise parce que xam nañu dans les grandes démocraties la fa xew 15 points yi mën naa wax ñeenti poñ moo ci gën a am solo bi ci des mooy pour mandat bi président Macky Sall ba muy def di di def campagne mu gis ni démocratie yu mag yépp mandat ñaari yoon nga koy def loo xam ne juróomi cinq ans du ko passé mu ne man kat kanu Sénégal li fi xewoon président nekk fi rekk doo fi jóge dama bëgg mu deñ mu proposé moom dafay wàññi mandaawam def ko cinq ans ñu war a xam ni nag Sénégal dañoo nekk un pays de droit un état de droit état de droit mooy say charte da nga koy teg ci lu ñuy wax constitution moom la ñu jiital muy président de la république du Sénégal wante lépp lu muy def daf koy teg ci charte réew mi charte réew mi lu mu wax ci mandat boo ko bëggee wàññi da ngay dellu ci la ñuy wax conseil constitutionnel laaj président de la euh, président de l'assemblée nationale parce que loolu moo nekk ci constitution bi yéeneem nekk yéene bu rëy yéene bu ñëpp rafetlu Sénégal mu moom tamit pour respecter constitution bi mu ne kon nag li ma constitution bi sas naa ko def naa laajte charte yi nga xam ne moo fi tegu mu bind lettre jox ko président de l'Assemblée nationale mu tontu moom depuis le 22 janvier. te ba muy tontu yëgul ni conseil constitutionnel loolu lay tontu kenn ci ñoom yóbbawul ak sa morom président de l'assemblée nationale ne ko mankat fukki poñ ak juróom yi nga ma proposé d'accord naa ci fukki poñ yi ak ñeent wante benn poñ bi bi nga xam ni moo lalu ci mandat bi dama lay fàttali ni que Sénégal ñoo la fal te bañ la falee da waat te ba nga waatee ci constitution bi moom nga ko teg. conseil constitutionnel yëgawul ak loolu ko président de la de l'Assemblée nationale loolu mu ko tontu ñoom itam ñu tontu ko loolu ñi jàng droit xam nañu loolu pour sécuriser suñu réew la parce que bu fekkee ni yow président mën nga toog sa mandat def lu la neex wàññi yokk sa mandat li la li li ñuy wax français ça va être un précédent dangereux conseil constitutionnel nekk mën nga wàññi sa mandat wante bii nga xam ni moom nga waatoon bii bokk si bii bi nga xam ni ñaan nañu yàlla Macky Sall ñu mbay ko deuxième mandat ndax liggéey na ko fi buñ ko buñ ko falee deuxième mandat boobu si la mandat boobu di nekk cinq donc muy une avancée démocratique beneen bi wax naa ko léegi si français ñun si jigéen ñi le quatrième point dafa am su am solo si ñun ñun jigéen ñi parce que yàgg nañu dégg jigéen ñi di xeex pour la promotion économique des femmes promotion économique des femmes ñi nga xam ni ñu ngi lutter pour le droit des femmes yàgg nañu xeex pour l'accès des terres pour l'accès des femmes à la terre point boobu ne reconnaissance de nouveaux droits droit à la terre et droit foncier donc muy lu am solo ñun jigéen ñi suuf sañu doon béy te moomuñu ko proposition de réforme bu buñ ko voté dañuy jox suuf si ñu moom ko comme góor ñi mooy lu am solo beneen bi li am solo si réforme bi bés bu nee dama koy wax droit reconnaissance des droit mooy resource naturelles ñun xam nañu ni Sénégal dañ fi dañ fi génne gaz muy ressource yu bees ñu am du pétrole sur les côtes saint-louisiennes ressource yooyu bu ñu voté ah ressource yooyu bu ñu voté réforme constitutionnelle boobu même pour les générations futures loolu les fruits de l'exploitation de ces ressources ñi juddoogul sax dañ ci am wàll donc muy lu am solo pour laïcité ñun ay doomu jullit lañu Macky Sall jullit la doomu jullit la day dem Tiwaawan day dem tuuba day dem Njaasaan day dem si Laayeen yi donc ñun laïcité lu am solo la senegaal xam nañu chrétiens yi ak les musulmans ñu ngi vivre ñu ngi àndandoo di nekkandoo Sénégal di jàppante loxo feetu chrétiens yi suñu feet la feetu jullit yi feetu chrétiens yi la donc loolu lu am solo la pour la démocratie sénégalaise et pour le peuple sénégalais Macky Sall nag dafiy ñëw le mercredi ñu bëgg doomu Thiès yëpp génn ñu teertu ko ñu sargal ko bu 20 mars ñun ñëpp ñu génn surtout ñun jigéen ñi ñu teel a xëy dem ci centre de vote yi voter massivement ci fulla ci fayda pour que le oui l'emporte massivement pour l'intérêt du Sénégal ni à 65 pour cent dañoo voté loon son excellent le président de la République du Sénégal donc ñu jógaat comme nañu takkoo woon jóg euh, dem jour référendum bi voté massivement ndax 15 ponk yépp am solo ndax 15 ponk yi laata le président de la République du Sénégal jël jox ko cour constitutionnelle commission de réforme des institutions pilotée par euh, euh, Amadou Mokhtar Mbow moo jóg saytu Sénégal bi yépp ba ñu saytoo ba jël 15